asalaamaaleykum mbokku téléspectateur ëttu Maodo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci les trois mille daal xaaja Abdou Faty ñu nekk ak yéen tabaarakallahu ci yërmane sunu borom subhaanahu wa taala bi nga xam ni moom yàlla dafa bëgg ñu tasaare ko ci sunu biir ku nekk nekk sa jaamu yërmande sa moroom gis nga wax naa la ni la nitu yàlla boobu bokkoon na ci ay jikkoom ku ko tooñ mu defante ak yow daawul jéggale daawul yërëm ñi mu nekkal ba taalibe mi tabaarakallaahu am ñu ko ci ràññee nga gis lu tiis loolu dem bay génn àddina dénkaane ni bu ma sëriñ bi jullee lu tax mooy yenent bi sallallahu alayhi dafa wax ni inna allaha yafiru liman la yaxfir wala yatuubu liman laa yatuub yàlla du baal koo xam ni moom it du baale kon mbokk yi nañuy jikkoo jikko yu rafet yooyu te mooy ñu nekk ay ibaadu rahmaan waaye gis nga bi xale bi génnee àddina sëriñ bi di ko waajal taalibi bi ñëw ba ci moom ni ko ah, sëriñ alxuraan kat nga ñu jàngal te alxuraan moo wax ni fa man badalahu baadama samiahu fa innama ismu ala lazina yubaddiluuna inna allaha samiun alim moo tax ma ñëw di la agge yóbbante bi ndax alwasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil maarufi xaqan ala al muttaqin looloo waral ma ñëw di la wax dénkaane bi sëriñ bi ni ko waaw lan mooy sababu moom mu wax ni man duma ko jullee mu ni sabab bi mooy sëriñ bi yow gis na ni ku la tooñ nga defante ak moom doo baale te njëggalu yàlla lay yaakaar ak di ko tabaarakallaahu sakku moo tax sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na man laa yarxam man laa yarxamu naasa laa yarxamuhu allah tabaraka wa taala képp koo xam ne doo yërëm nit ñi yàlla sunu borom du la yërëm moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yërmande googu nag ci sunu biir mooy ku ci nekk la nga mën a jàppale sa mboroom moo xam alal la wala xam-xam la wala kattan la nga jàppale ko te yàlla tax ndax man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaamati yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne ku suturaal sa mbokk jullit moo xam ci lu mu mën a nekk nga fekk ko fa suturaal ko moo xam dundu këram la moo xam tabaarakallahu da gis ñu koy coupé ndox wala courant wala ordinance wala yi xew ci jamono dafa amul lu mu fay luyaas nga ñëw taxawu ko jàppale ko ngir wane euh, tabaarakallahu solidarité ak yërmande yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dina yërëm kon mbokk te spectateur ëttu Maodo TV incha allahu taala koor gaa ngi tàggoo waaye yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem du tàqali ko ak ñun kon nag nañu gën a yërëmante te jàppalante te bàyyante xel ñu ngi leen di jox dig daje incha allahu taala ci sunu ay dernier nag numéro ci ëttu Maodo TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الفضل أجزل والمواهب أوسع يا